wa adxilna bi rahmatika fi ibadika alsalihin amin ya rabbal alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu mbokki jullit ak fu ngeen mën a nekk di ñu teewlu ci site bu am solo bi di Seneinfo seen mbokk imaam Mouhamadul Bachir Darame moo leen di nuyu tabaarakallahu ñu ngi leen di ndokkeelaat beneen yoon ci weeru koor wi te di ñaan yàlla mboolem lépp luñ ci jëf yal nañu ko yàlla boole nangul ci barke weer yi noonu lañuy ñuy nuyoo suñ mbokk yu baax yi ñu bokk ak émission bi waaye di rafetlu seen liggéey te di leen ñaanal comme ni ñu koy waxee sax su nekk yàlla dolli leen tawfiix ak siir ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci seen émission bi ñuy am ak yéen di Az-Zikra tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen ci tomb bu am a am solo muy mahabbatu nabi sallallahu alayhi wa sallam tey suñu waxtaan dañ koy jagleel ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jublu ko ndax ay mbir incha allahu taala danañ danañu wax li nga xamante ni moo ci nekk ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jublu ko kon mbokk yi suñu waxtaan tey ci loolu lay aju lu tax nag ndax yàlla ci mbaaxam dafa dogal ne lépp luy mbaax lépp da ko globaliser jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa waaye lépp luy cër te nga bëgg ko muy lu aju ci àdduna lépp dafa nekk ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yàlla dafa jël yonent bi alayhi salaatu salaam def ko mu di buntam moo tax aarif bu mag ba wax ko imaamul bakri yi ne ko antu baabullaahi ayumrin ataahu min gayrika laa yadxul yow yonent bi alayhi salaatu wa salaam yaay buntab yàlla fu waaye mën a jóge bu yegsee ci yow seytaane xiir ko ci mu teggi la du mën a dugg ak feneen fu mën a wër day wër ba sonn waaye du am beneen porte bu mu jaar pour dugg ci bi yàlla kon loolu moo tax ñi war a fexe jubóog yenent bi alayhi salaatu wasalaam ndax kat boo bëggee dugg ci kër te kër gi am sécurité fexeel jubóog borom kër gi kat boo jubóog moom rek dugg ci kër gi dina la yomb kon loolu moo war a tax ñi fexe jubóog yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñ amee cofeel ci moom rek danañ jubóog moom te suñ jubóog moom rek jubóog nañu ak yàlla yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko yépp ak yiw da cee nekk waaye wan ko ginnaaw loolu it toskare la échec la lay jural ak ci lu mën a doo rekk na nga ci jiital yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bi nasil quraan dafa am ñaari aaya yoo xam ne dafa ñëw ci alquraanul karim saa borom wax fa loo xam ne war naa tax ñi jublu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bëgg ko ndax yàlla dafa wax ne falaa rabbika laa yuminuuna xataa yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa laa yajiduuna fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimuuna taslima yàlla dafa wax yonent bi ne ko waxal sa xeet ne leen duñu nekk dëgg-dëgg woy gëm du nekk dëgg-dëgg jullit lu mooy ba lépp lu ñuy doxal ci seen activité moo xam lu aju ci mbiru àdduna la wala mbiru àllaxira nañ la ciy jiital di la ci attiloo te nag soo leen ci attiloo mbir buñ ci am benn luñ ci discuter ndax sa wax rek topp rek moo ci topp kon nga gis ne pour nga nekk dëgg-dëgg jullit yow nit ki danga war a jox sa bopp yonentu bi alayhi salaatu wasalaam te nit ki nag mënoo ko jox sa bopp lu mooy da xam kooku mooy kan ki nga war a jox sa bopp waaye ñu gis ne yaa yàlla sunu borom wax na ci beneen aaya ne walaw annahum iz zalamu anfusahum jaa'uuka fastaghfaru llaha wastaghfara lahum rasul la wajadu llaha tawwaban rahima yàlla nee na ñoom doomu aadama yi su fekkee dañoo tooñ seen bopp waxut tooñ yàlla ndax nit ki loo def sa bopp nga ko jëfal man amila saalihan fa li nafsihi waaye wa man asaa fa alayha sa jëf yow la concerné yàlla da ngay ñëw rek mu xool li nga jëfal mu fay la ko wa man yàmmal min wa man yaxmal min asalihat min dakarin aw unsa wa muminun fa ulaika yadxuluna aljannata mu waxaat tamit waman yaamal su ay yujza bi ku jëf lu baax te fekk mu'min nga ëllëg jëf jooju moo lay soofee dugal la aljana waaye ku jëf lu ñaaw waman yaamal su a yujza bihi boo defee lu ñaaw yàlla mu ne loolu lañ lay fay kon nit ki ku muy jox boppam da ko war a xam loolu moo war a tax nag ñii bëgg yonent bi pour pour ñu xam ko it faw ñi xam kan mooy yonent bi sallallahu alayhi pour ñu bëgg ko kon laaya ji ñu wax léegi yàlla dafa wax ne nit ki wala doomu aadama yi suñu tooñee seen bopp def lu bon dem ba yegg ci sommet ba foo xam ne yaakaar nañ ne kii moom yàlla dootul ko mos a baaxal nee na ñi def effort fexe ba ñëwal yonent bi jaawuka fexe ba ñëwal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi jéggaloo ci moom yàlla moom it mu d'accord jéggalu leen yàlla su boobaa nee nañ dañ fekk ne yàlla nekk koo xam ne tawaaba rahima mu nekk ko mën a baale waaye nekk ko mën a yërëmi kon nga gis ne li am solo rek mooy nga jublu yonent bi alayhi salaatu ndax moom mooy moom mooy sa intermédiaire sa diggante yàlla foofu intermédiaire mënul fa ñàkk soo jugoon def direct dem ba ci yàlla sax du la faale waaw kon faaw nga jaar fi nga war a jaar mu ngi mel ni tey bureau yi boo fi duggee dafay am secrétaire doo tëba tëb rek egg ci directeur ba waaw dafay am fooy jaar naka noonu tamit kër yàlla noonu la mel kon faaw nga jaar ci yonent bi alayhi salaatu moo tax ne fastaxfirullaha ñi sàkkoo jéggaloo yàlla waaye jaaree ko ci yonent bi yonent bi tamit na ñëw participer si jéggalu leen yàlla su ko defee la wajadullaha tawaaban rahima kon dangay gis ne yiw yépp ak yiw mu ngi ci jublu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax soo ko jubloo jublu nga yàlla waaye soo ko teggee rek nag li nga bëgg doo ko am naka noon it dëddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy musiba wala musiba raw dëgg dëddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yàlla dafa wax ci beneen aaya di fa nettali ñi nga xamante ni dañoo yëg seen bopp moo xam nag lu ñu yëgee seen bopp lu moo lum rek xéwal ak yàlla la waaye gisuñ ko seytaane jaay na ba ñu yëg seen bopp teguñu yonent bi fenn jàppee ko benn benn si nit la rek boo xamante ni dafa yem ak nit ñi te moom sallallahu alayhi wa sallam ëpp na muy tolloog nit ñi oto wuykat bi nee waaye laa kal bashar bal huwa kal yaquutu nit la waaye nekkul comme nit ñi boo ko doon naatable ni mel ak nit ñi dafa mel ni wurus woo jël teg ko ci biir biiri doj ku ne xam ne tey ànda leen boole rek waaye nekkuñu ay mor yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la mel ak nit ñi léegi nag ñi nga xam ne ñag yëg nañ seen bopp ba dëddu yonent bi yàllaa ngi wax ci aaya yii may bëgg a wax ne yàlla du def ak ñoom nenn waaye du leen mos a jéggal ak seen jëf ju baax lum rëy rëy rëy rëy yàlla xoolu ko yàlla safu ko kon yàlla leen rek ko saf mooy nga jiital yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci lépp laay ji yàlla dafa ne wa ida qiila lahum taalaw yastaxfir lakum rasulallahi lawaw ruusuhum wa raaytahum yasudduuna wa hum mustakbiruun soo leen waxee ne leen kaay leen yonent bi alayhi salaatu wa salaam jéggalu leen yastaxfir lakum rasulullahi la waw ruusu ñi ne noonu ñun mën nañoo demal suñ bopp nga gis leen ñi wan wan gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nag nee na ñooñu yonent bi sawaun alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum abadan mu ne ñooñu nag yow yonent bi moo xam baax nga sa baax ba taxaw leen jéem a jëlal intervention sama ak ñoom wala nga màndu ci neutre ci du tee man ñii duma leen baal ndax liñ def mooy dañoo dëdd yonent bi alayhi salatu wasalaam te yonent bi ku ko dëdd rek yàlla dëdd la yàlla su boobaa xoolaatul sa jëf ndax jëf yooyu yëpp dafa am lu koy téye mooy bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam moo tax suñ maam jëmbaax ji amarul faaruq radiallahu anhu borom daaru wax ne mahabbatul yi xayrul xalqi imaadu kulli sidqin imaadu kulli amalin wa sidqin waajibatun fardun ala al aryaani wa subdatu lislaami wa liimaani nee na bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy imaadu kullu amalin wa sidqin jëf joo mën a jëf li koy téye ba tax yàlla mën koo nangu mooy nga jiital bëgg yonent bi ci jëf ci moo tax mu ne loolu sax dafay nu ji nekk waajib maanaam dafay nekk lu war ci képp kuy jullit nga bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax bëgg googu moo moo tax soo soo jullee yàlla gërëm ko soo saraxee yàlla gërëm ko soo waxee lu baax soo jokkee mbokk extra ba jeex yàlla mën koo gërëm waaye gis nga lépp looy jëf te jénnee ci yonent bi xamal ne sa jëf jooju ëllëg yowmal xiyaam da ngay ñëw mu nekk haba an mansuura dangay ñëw yàlla na la fi amoo fi dara ndax dafay mel ni su ma ci doon jox exemple dafay mel ni saako boo xam ne dañoo bënn ci suuf bi yow ngay jël sa ceeb di fa sotti wala ngay tibb leneen di fa sotti loo sotti du fa taxaw loo sotti du fa taxaw lu ñëw rek yàqu kon jëf ji ñuy jëf ñun jullit pour yàlla man koo accord téyel ñu ko fay ñu ko fekk ñi jiital bëgg yonent bi sallallahu alayhi ci sunu xol kon solution bi lenn rek la mooy jublu yonent bi te bëgg ko waaw ndax bëgg ko mbëggeel googu li ci nekk moo tax suñu maam ji baax ji ca Kaolack maam Khalifa Niass dafa wax ne salaahu amri jamiha nnaasi qatibatan fi hubbihi wattibaaxi afdalil milali njëriñal nit ñi kooku jël na jullit yi mais nation bi yëpp la wax daf ne seen njëriñ mu ci ñaari yëf kese mooy bëgg yenentu bi sallallahu alayhi wa kon buñ bëggee société bi baax umma bi ñëpp nekk ci jàmm mooy nañ fexe bëgg yenentu bi ak lan wattibaawu afdalil milali mooy nangoo topp njàngale mi yonent bi alayhi salaam nangoo topp diinaam li nga xam ne tey moom la ñuy indil ngir ñu war koo topp kon ñaar yooyu suñ ko jëlee rek teg ko suñ kanam dañuy mën a am jàmm société bi am jàmm àdduna bi ñëpp am jàmm waaye feeg ñi ngi dëddu yonent bi rek si ñàkk a topp ak njàngaleem si ñàkk koo bëgg si ñàkk a bëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fi wuutu duñu am jàmm kon solution bi mu ngi ci bëgg yonent bi sallallahu waaw ndax moom mooy tax jëf ji ngay jëf comme ni ma la ko waxee léegi yàlla nangul la ko ndax bëggee la yonent bi moo lay poussé ci lépp looy jëfati tey ngistal du ci am waaw nga sellal ko soo ko sellalee nag yàlla gërëm te yàlla loolu la bëgg wa ma umiru illa li yabudullaha muxlisin digalu ma leen ngeen jaaw ma lu may nag ngeen jaaw ma jaamu gu sell sell jaamu gu sell googu nag pour nga am ko da am mahabatu nabi waaw mooy lu borom daal wax nee na muxlisatu taati wal adkaari tuwasilul hibba ilal xafaari mooy sellal sa jëf yi jëfi topp yàlla yi ak mbooleem laskaar yi ngay def jëfu topp yàlla yi nag yaatu na jullee ngi fi saraxa ngi fi jokk mbokk wax lu baax ah demet demet demet ba mu jeex kon loolu yëpp rek secret bi lenn rek la mooy nga bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg yonent boobu mbokk yi nan lañ koy xamee ci kum nekk ak ci kum nekkagul nan nga war a mën a def ba mu nekk ci yow loolu insha allahu taala danañ ci ñëwaat ak yéen suba ak jàmm bi idnillahi taala ñi gën koo leeral du ñaan yàlla mu defal ñu mahabatu nabi sallallahu alayhi ñu ko defal ko mboolem julli ndax ci la lépp nekk suñ mag ñu baax ñi ku ñu raw foofu lañ la rawee ku ñu raw foofu lañ la rawee ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku ne xam na tey li leen yàlla may yëpp kon yal nañu yàlla téye ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dëpp la ñoom moom dëpp la ñoom njàngaleem in uridu ila al islaha mastata'tu wa